وعندي عمر jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi mën nga yónnee sab laaj ci numéro whatsapp bu fatawa rajo leeral fm numéro bi di 78 179 27 59 78 bi képp yónnee sab ci whatsapp bi dinañ ci jot jërë ngeen jëf kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine تكفيني نشرت تعاليما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi nuy topp ci seen alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahullahu waraa ñu leen di ziar fu ngeen ñu mën a toppee ci biir Sénégal ak ci biir Afrique ak ci continent yëpp moo xam ñu ni topp ci leer fm bi ci Louga la wala salaam bi ci Mbàkke wala keppaar gi ci Kawlax wala sax idaatul quran muy rajo al quranul karim ba ca wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor wala xam sa wala dégg diine wala xam sa diine wala sax ci réseaux sociaux yëpp ak euh, site yi moo xam euh, bawal TV la moo xam Fafa moo xam yi ci des yëpp ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko mboolem julit kon ñu jox Cheikhana mu ibbee su paree ñu doogay ñëw ci lenn li fi rot ci laaj. inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 bismillah baarakallahu fiikum cheikhna jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na moom fukki at ak la am te bam sa yéeg léegi la nee na tamit sa yéegul borom këram mooy ñëw mais nee na daal bëgg nay conseil ndax jaaxle na lool li ko jaaxal mooy borom këram bu ñëwee moom nga xam ni moom ku jigéen ki dafa war a dem ci waañ bi dafa war togg dafa war a raxas ay ndab parce que yaayam la dëkkal ak beneen sëram te ñoom ñaar ñëpp dañoo feebar jëkkër ji naan ko bul dem ca waañ wa bul raxas su bëggee wax mu ne ko may si kilifa da nga war a def euh, li ma la sant fekk mu wuteeg li euh, yàlla bëgg muy laaj nag ndax moom loolu ko borom këram di tere ndax jaadu na wala déet te bu ko deful yaayam dina mujj jug te wérut mu ne nu def. alhamdulilah euh, soxna soosi ak borom këram bi day seen mbir mi lu xaw a doy waar la borom kër bi dafa mel ne bu fekkee ne soxna saa ngi wax ne euh, yaayam ak séeram ñoom ñaar ñëpp ku ci ne dangaa wéradi borom kër bi ak wéram aajana xoolaat ndax moom it am na wér gi yaramam déet ndax su fekkee ne nii mu wax loolu mooy xalaatam euh, kon de xalaatam xalaatu ku wéradi la wala boo xalaat yu suufe la ndax su fekkee ne xale bu jigéen bi nga takk da ko fekk ci seen kër te yow boogoo ko fa nga dëkk yow yaayam nekk fa moo xam daa feebar wala daa ànd ak wér-gi yaramam nga déplacé sa kër ñëw fanaan si fa ba noppi ne ko yow nag doo dugg ci waañ loola di lu muy firi kenn xamu ko maanaam su toogee duggul ci waañ bi ndax moom dana reer moom ci boppam su fekkee yaayam lay séentu mu toggal ko ndax soxna si kon bu bu sëy ca kër ga te fekk sa yaay bopp dëkk fa yow ko góor kii ndax day toog kon rek fas day loxoom sa yaay di leen toggal wala noo ko xalaate ala kulli xaal xalaat yi gannaaw bu mu nekkee xalaat yu suufe ba àggal nekkul tam yoo xam ne lu dëppoo la nag ak lislaam mu kay boo fanaan fanaansee ci kër sa soxna nekk fa nga indaale dépense jox ko ko dalay toggal jox la nga lekk jox yaayam mu lekk jox ay séeram ñu lekk loolu mooy li jaadu loolu mooy li liñ xam ci am xel mu mujj teyit moom la aada tër te sharia terewu ko nam tooge woon ba nga fa ñëwagul di toggal yaayam ak di leen toppatoo boo ñëwee dalay boole ñoom toppatoo leen boo ko ko teree nag leneen loo fay teg moom yaa koy xam ndax so yaay ji wérul ko forcé moom mu dugg ci waañ ala kulli xaal soo teree sa soxna mu dugg ci waañ nag kon li muy li mu war a firi rek euh, mooy dugg ci waañ da am te su amut kenn du lekk naam. jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii nee na dafay laaj def al baaqiyaatu saalihaat ginnaaw julli farata la wala sunna wala lu sopp wala lan la ndax nee na dafa gis ñu bëri. buñ jullee ba pare rek duñ ko def dañuy jug duñ ko def duñ def ñaari rakk def ci ginnaaw. alhamdulilah albaqiyatu salihat mooy subhanallah alhamdulilah allahu akbar yooyu benn bu ci nekk fanweer ak ñett muy juróom-ñeent fukk ak la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muy téeméer loolu la ñu tudde baaqiyaatu saalihaat boo jullee bu nekk jullik farata da nga koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko jàngalee noonu la ko laan defee kon nag jëfe ko rek moo jaadu ci jullit te képp kuñ ko xañ ku nekk xañ nañ la tuyaaba ju bare bari ku ko bàyyi bañ koo def tuyaaba ju bare bare bari joo xam ne danga ko soxla ëllëg rëcc na la lu demee noonu nag nit ka du ferenklaayu di laaj naan ndax li farata la wala sunna la wala luñ sopp la waaye day xam ne lii buntu butu tuyaaba la boo xam ne yonent yàlla ba moo ko santaane daan ko jëfe mu jéem koo royee yonent yàlla boobee jéem ko wuti tuyaaba ndax ëllëg mu mën koo jëriñ naam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi soxna si nee na boroom këram bis bi mu fasee wujjëm bis boobu ci wujjam la borom këram waroon a aaye mais mu ñëw ci moom bi mu ñëwee mu ne ko ah yow waroo fanaan fii moome woo fi mu ne ko ne kër fase naa ko mu ne ko même boo ko fasee foofu nga war a dem ma tëddi mu ne ko kon euh, comme loolu nga jàpp léegi euh, nañu seq li nit di seq ak soxnaam ba pare ma doogay dem foofu moom nag mu ni euh, loolu mu ko nangul ba mu am ndax nekkul sàcc ay wala ndax li borom këram waxoon ni du fa fanaani borom këram moo ne ci dëgg wala lu ci am daal lu sharia tëral alhamdulilah moom day ba mu pasee wujjam ñëw fi moom mu laaj ko mu ko fase naa amatut lu muy wax foofu xam na ne moom la dese ci jabar jarul mu koy tere boppam ci bis booba dara nekkut ci mu ànd ak moom féete de loolu mu naan ko foofa nga war a dellu it loola déedéet du noona ndax su ko fasee ba noppi mënu faa dellu ndax su fa delloo loola mooy fayli ko su fekkee da koy yéene fayli nag bu ko neexee mu dellu fa su fekkee passé bi matagul woon ñett bu ko neexee mu dellu fa dal koy fayli mu nekkaat jabar ko mu nam ko nekkee woon waaye moom mii moom amul droit ci lu mel noonu daa daa seqib jéegoom jëmale ko ci loo xam ne day jéggi frontière am boroom këram dikkal na ko xamal na ko ne fële kat laa aaye woon tey waaye kooka na toog rek te xam ne eh, moo fa des ci soxna te ginnaaw da ko yittewoo bala génn di dugg ci yeneen mu dikk ci soxnaam loolu mooy la jaadu wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fikum cheikh bi kii nee na dafa nekk ci dëkk boo xam ne fa lay jàngalee waaye dafa bari ay dëkkandoo yoo xam ni bokkuñu ak ñoom diiney lislaam mu ni ndax bu ci kenn faatoo moom mën naa e, ànd ca rob ba mën naa bokk ca ña koy ñaanal wala déet ndax foofu seeni aada moom loolu la góor jullit ñaak ñeneen ña lu ca xew ñoo cay àndandoo mais nee na ndax loolu dina dagan ci moom alhamdulillah koo bokkalul diine day bu faatoo lala lislaam mayte yam ca képp mooy dagan na nga jaale ko bàyyi leen bañ def seeni yëpp ba yëpp sotti bañ denc ba def seeni yëf ba toog ci seen kër nga dikk seet si sa dëkkandoo yooye wala sa jege ñaale yooye dénk leen ñu muñ loolu rekk la la lislaam may waaye daganul ngay ànd ak ñoom di dem ci seeni armeel di denc daganul ngay ñaanal ka faatu te faatuwul ci wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi soxna si nee na moom day dund sunna nee na dafa am benn waajoo xam ne nag da koo bëgg nee na waajooju soxna see waa nee na waajooju moom dundul sunna la neen lay dund nee na waa jooju yëngatu ci ay ñaan da yëngatu ci ay ñaan nag boo dégloo laaj bi ci biir yëpp mooy waaj am njabarkat la rek ndax day wax ne dinay bind dinay def ay asraar ak yu demee noonu mu ni waaye li ko ci poussé moom ku baax la ku am ay jikko la nee na waa tamit xam naa ni euh, maandu na mën naa am euh, dina ko bàyyi euh, mu dund sunnaam moom mu dund moom la muy dund muy laaj ndax dina dagan mu dugg ca daal ni mu waxee daal xam naa ne moom bëgg na ko lool léegi nag day laaj ku noonu nga xam ni eh, day bind day njabar wala boog day yëngatu ci bind comme ni ko waxee ndax dina dagan mu sëy ak moom alhamdulilah waaju dundul sunna ba noppi day boole ko ak di jabar kooka duñ laay biir kenn ne ko sëyal ak moom doonte ma ngay wax ay jikko yu rafet ak ak mbaax ak yu mel noonu mbaax moom munta weesu rek tënku ci santaane yi sunu borom tabaraka wa taala bàyyi ay tereem ginnaaw tënkuwul ci santaane yi sunu borom nag muy sunna te bàyyiwul ay tereem te njabar bokk ci yi ci gën garaaw ci yum tere kooka mënuñoo jàpp ne dañ koy laay biir ko sa ëllëg moom donte da koo bëgg ca na muy waxe wallahu taala alam barakallahu fikum jërëjëf cheikhana cheikh bi laaj bi mi ngi jóge bitim réew kii nee na dafay liggéey ci benn tool boo xam ni ki moom tool bi moom moo maale usine sàngara bi mais moom ca tool ba lay liggéey liggéeyul ci usine ba waaye nag leer na ko li ñoom la liggéey ca tool bi yëpp après ca usine ba la jëm ñu def ko ay sàngara mu ne di ndax dina dagan mu liggéey ci tool bu mel noonu. alhamdulilah ki am ab tool am usine sàngara ngay liggéey ca tool ba wala mu am restaurant boo xam ne yàpp dagana lekk lay jaay amaat beneen restaurant boo xam ne yàpp mbaam lay jaay. yooyu moom la ñuy tuddee jihatun munfakka ay mbir la yu bokkut yow mi liggéey ca lu dagan la ngay def lu dagan la ndax dagan ga ak xaraam ga ajuwut ci waa ji waaye ci atteb sharia la aju ki nga xam ne daa xëy di liggéey ca tool ba di bay raisin wala muy bay leneen dugubi suuna mu wóor ko ne resin ji bu noppi am na ñu ci mën a liggéey sàngara dugub bi suuna ji am na ñu ci mën a liggéey sàngara loola du tee nag bay dugub bi suuna dagan du tee it bay resin dagan nag même su fekkee ki mu koy bayal bu noppee loola la ci def moom lu dagan lay def ala kulli def bakkaar ba kooku mooy yóbbu bakkaaram wala taziru waziratun wizra uxra bakkaar du wàlle borom bakkaar bi moom moom jëfandikoo xalaal moo moom la lew noonu rek la wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi laaj bi mi ngi jóge Thiès ci ku ñuy wax Cheikh Tidiane Diop nee na dafa dégg kuy wax ni natt yi ñuy def daganul ndax mooy kaay ma lebal la pour nga lebal ma mu ni nag nit ki danga koy lebal euh, pour nga sartanteeg moom mu lebal la nee na du dagan kooku ni euh, natt yi nit ñi di def ci loolu lay dugg kon dafa xaraam mu ne ndax loolu lu wér la wala déet alhamdulilah boroom xam-xam de léeg-léeg day tërëf ni naaru góor di def di daw ba mu yàgg mu tërëf suk jógaat borom xam-xamub lu mu mën a doon nag ak ku xarañe lu mu mën a doon da nga ca nekk di ci liggéey ba mu yàgg nga juum ca boroom xam-xami fiq nag li ñuy juume léeg-léeg ci buntub alqawaid mooy jël ab règle générale daal di koy appliquer ci masala moo xam ne méngoowuñ ñoom ñaar benn masala mi rémb régal bi wala règle bi rémb masala mi nga xam ne duñ tolloo ñoom ñaar buntub ñi nga xam ne dañoo jàpp ne teg yi ñuy teg xeetu riba ngi ci biir mooy dañoo jëfandikoo benn qaayida bi wax ne aslifuka ala an tuslifani wala taala aqribka ala an tuqribani kaay ma lebal la ci chartu nga lebal ma yow loolu ñi ko jël dugal ko ci natt bi dañoo juum ci application bi maanaam masala mi bokkul ak loola boo demee ci téere yi koy definiir yëpp ci téere fiq yi dañ lay wax ne kii leble la muy leble ak lañ koy fay bokkut man kat danga soxla am xar kaay ma lebal la ko waaye nag sa machine bale ngay bayee yow itam danga ma koy lebal fekk maa ngi soxla woon machine lool te awma fu ma ko amee te gisuma ko koy jaay wala gisuma awma lu ma ko jënde kon kooka xëy na xëccal na ma njariñ man ndax su ma lebale su ma leblewul woon xar mi kon machine bi duma ci jot ba man cee bay sama tool bi moo tax dañuy wax ne lam koy lebal bokkul ak li ko kii di lebal baatu baatu xëyra ñëw ci biir définition yi nag lu bari ci warum xam-xam yi moo leen rëcc ñu tàbbal ci ay teg teg yi am ubbi ak kees fukki nit ñëw weer wu dee kenn ku nekk tàbbal ci junni kenn jël ko bu weer dee mu fay si foofa la fa nekk mooy leb ak fay waaye leb leen te nekku fa kaay lebal ma ma lebal la nekku fa waaye kaay lebal ma ma fay la moo fa nekk bi nga jëlee sab junni teg weer wa dee kooko teggi ko weer dee mu indiwaat ab junni kooko tàmbali na di fay mbooloo mi di fay benn benn ba tuur ba mat su ko defee borom mat kenn ku ci nekk noonu la jëmmi la nga leb loola nga fay te benn intérêt nekku ci boo xam ne dañuy wax ne riba la wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na deux mille vingt deux amee woon na bor koor mais munu ko woon a fay ba deux mille vingt trois deux mille vingt trois moom nee na woor na lépp te ñu ngi nii di dugg kooru deux mille vingt quatre mu naka lay fayee six jours yi nga xam ne moom la ame woon ci deux mille vingt deux ba ndax day leele wala nu muy def. alhamdulilah amee juróom benn deux mille vingt deux ba mille vingt quatre day. te fayoo ko loolu moom ala xaal càggante am na ci waaye nag bar baa nga fa rek de da koy fay de da koy fay fay ko rek la mën a def ginnaaw fi mu nekk fii Ramadan li fi des ëpp na juróom-benni fan na daal di wum fay juróom-benni fanam loolu rek mooy solution bi amul beneen naam. jërëjëf Cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi kii nee na moom buy julli li ñu wax ngay def. muy iftilaj bi mu euh, euh, teg tànku càmmoñam toog ci nee na moom tànku càmmoñam dafa am problème du ko mën bu ko defee da ciy gaañu moo tax tànku lay lal toog ci mu ni loolu baa du yàq julleem alhamdulilah kii julli bu amee wenn toogin wala taxawin woo xam ne mënu ko nday def rek waxu waaye borom bi tabaraka wa taala du def loo kenn lu mu mënut laa yukallifu llahu nafsan wusaha na def lam man rek su fekkee ne taxaw mi nga xam ne ci farate yi gën a dëgër la bokk su nit ki lottee ci taxaw day toog di julli kon aw toogin taxul ñuy wax su munta def toogin wañ ko sant na def toogin wam man te dara du sikk ci julleem wallahu taala alam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi ñaar ay ouvrier ren euh, nee dañuy liggéey maçon wala yu demee noonu mais kenn ki buy xëy suba gi comme six heures lay wàcc suy xëy suba bu jullee suba nee na ci lay julli tisbaar ak takkusaan doo koy xëy keneen ki ni ko man damay bàyyi ba wàcc su ko defee balaa euh, timis mm, ay six heures et demi demi noonu ma julli tisbaar ak takkusaan kii nag muy laaj mu ni ndax ñoom ñaar ñi lii ñuy def jag na wala jagul bu jagul lan lan war a def alhamdulilah ay ñaar ñooñu de li def euh, kenn defu ci lu jag waaye kii xëy ci suba gi nag di julli tisbaar ak takkusaan moom moo ci gën a naata xoona euh, amut ndax julli gu jotagut kenn mënu koo julli waaye kii def bis bu ne mu bàyyi ba waxtu ba weesu mu door leen a julli it tisbaar takkusaan kooku it mi ngi def loo xam ne ak mooy yàlla la bàkkaar a ngi ci teewul nag bu ko jullee am nag julli ala kulli xaal waaye loolu moom kenn waru koo saxoo ci ngàntul ab liggéey liggéey bu mu mën a doon saabu bu waxtu julli jotee da ko war a arrêté dem julli ji soo dee si signé contrat boole ca loola ne leen man kat dama am waxtu yoo xam ne bu jotee damay julli ji suñ la ko nangulalee alhamdulilah suñ ko nanguwul nga bàyyi fa booba liggéey dem seeti beneen wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na dafa seetlu daal Sénégal lu bëree bëri bëri ci ndaw ñi ñu ngi ci carte gi carte goo xam ni ndax bu njëkk mag ñi ñoo daa carte dem ci PMI yeeg yu demee noonu kes ki mais léegi dañoo defal xale yi euh, ay façon carte yoo xam ci seeni portable wax dëgg yàlla ku ci amul sax loo kiiwee di nga dem sàcc wala wala leneen te euh, responsabilité état ngi ci ak ñi nga xam ne euh, seen intérêt la ñuy xool ba sacrifice sacrifier euh, ndaw ñi nee na bëgg na daal ay orientation yoo xam ne di nga ko jëmale askan wi jëmale ko état bi jëmale ko parents de parents yi jëmale ko ndaw ñi ndax carte gi bëri na te tasaaroo na ci senegal lool. alhamdulilah waaw gone yi carte de moom moog mag ñi carte benn rek la dara baaxu ci lu xaram la mag muy carte sax nag moo yées waaye teewut gone gi ngay bàyyi muy carte yaa ngi ko koy jàngal bu ëllëgee mag muy carte lay doon ala kulli xaal lu xaraam la loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko ci alquran. kon jarul ñu di ko ubbil bunt boo xam ne dañuy bàyyi gone mu di ko def ba di ko màggaale màgg itam daganul mu di ko def waaye nag ab société lañ nekk boo xam ne tey daanaka mbon gi nim tasaaroo xàmmeetul gone ak mag dégg naa ñu fiy wax ci rajo yi ne am na ay eh, chasse sàngara yoo xam ne dañ koy jaay sax gone yi jàng ci école yi ñu di ko jël di ko naan fu gone di naane sàngara nag bu mu la bett bu fekkee ne day carte waaye ala kulli xaal la war wootekat ya ak jàngalekat ya ak xamlekat yi mooy ñu leeral diine yàlla ba ñëpp xam ko ñi xamal leen ne carte ci boppam moog naan sàngara ak njaaloo ñooyam lépp ay mooy yàlla la dara baaxu ci bàkkaar la boo xam ne mën naa yóbbu nit sawara su defee njaboot yi nag ak parents yi ñu yittewoo seen doom yi di leen xool di leen teg ci siraatul mustaqim fekk ay gone yu tuuti lañ jàngal leen alxuraan yar leen ci diine jàngal leen jamu yàlla muy julli ak koor jàngal leen jikko yu weg mag yërëm gone xeeti melokaan yooyu ku ko def ci gone ci waxtu teel dana sañewu ba ku ko bëgg a dugal ci sudul noona mooy xamal boppam ne lii lu baaxut la foofu la liggéey bi nekk naam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii dafa am Euh, ku siiw fii ci Sénégal tuub dugg ci lislaam génn ci diine bi mu nekkoon mais nee na ak Sénégal ak seen parparloo ki kenn ku nekk di xëcc ci tariixaam kenn ku nekk di xëcc ci mbooloom nee na daal ragal na loolu yóbbe sax mu xeeb lislaam nee na lan nga koy dénk moom waa jooja ndax xam na ni loo ca tontu dina àgg ca moom wala ngeen ko ko àggale loo ko koy loo koy dénk ak looy dénk encore jullit ñi ci bunt boobu euh, ban man cee ragal yàlla bàyyi ko mu tënku ci alquran ak sunna alhamdulilah lima ma jàpp mooy magum jëm mu xelam nekk ci jeneen diine di xalaatal sa bopp ba war a dugg ci diine lislaam Eh, rawatina kuy dund ci sunu réew mi juddoo fi yaroo fi màgge fi nekk ci jeneen diine ba mu yàgg nga tànn diine lislaam jàpp naa ne am na yaari mbir yoo xam ne dana la musal ci lu mel ne kii di laaj li muy wax leneen li mooy gis nga ci diine lislaam loo xam ne moo la gënal diine ja jóge su boobaa kenn du ragal ñu fitnaal la ci lislaam leneen la ca desit mooy xam nga li réew mi di dund bu dee ci jullit yi communauté yi fi nekk xam nga li ñuy dund ba du àgg ci e, ñi di la xëccoo mu di la bett wala ñuy jàpp ne dugg na fii ñeneen ña nañ ko wala lu mel noonu déedéet yoolu moom jàpp naa ne ku mel noonu dana weesu foofu leneen li ci des mooy léeg-léeg ñuy laajit nag dañuy yëkkati mbir mi ba yóbbu ko foo ne fu mu la man yëgaguma euh, kenn kuy tuub dugg ci diine lislaam nit ña taxaw di ko xëccoo kii ne na ñëw ci sa tarixa kenn naa ñëw ci sama sama tarixa lool loolu moom yëguma ko ndax kii tuub fawu rek am na kum jokkool koo xam ne euh, ci benn communauté lu féete mu ñëw tuub ci ay loxoom kooko dugal ko ci lislaam soo dugg ci lislaam jeex na nag bu ëllëgee moom mu ngi ci biir diine ji boo xoolee li nekk ci biir diine ji ba gis ab choix boo xam ne gis na ne lii moo ko gënal su boobaa day jàpp ca loola rek nekk ca ala kulli xaal mbir mi àggul nag euh, fenn fi jàpp ma ne lenn luy fitnaal kookee tuub ci am jàpp ma ne it ak xëccoo am na ca rek ci diggante ay communauté wala ay tariqa wala yu noroog loolu wallahu taala alam baraka allahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum ci tontu yi yàlla na la yàlla sàmmal Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission al fatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di al fatawa al fatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot 20 une heure jàpp vingt deux ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa mën ngaa yónnee sab laaj ci numéro whatsapp bu fatawa rajo leeral fm numéro bi di 78 179 27 59 bi képp yónnee sab laaj ci whatsapp bi dinañ ci jot jërë ngeen jëf. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine. عمر يكفيني نشرت تعاليمه